asalaamaaleykum himdillah baarikàlla mbaa defu leen dara himdillah baarikàlla man de maa dikk di leen nuyu si tey rek ak pour ñu waxtaan faam waxtaanu ma indi tey de waxtaan wi de maa xëy suma xel daj ko ma ne ma dikk ah ñun de suñ askan wi foo bëri yi ci xaw a sant njaay waaye yàlla baax na anu ñii de gannaaw yàlla ci askan woo lañu boole fa ñuy jàpp ci yàlla rek yàlla baax na waaye li ma bëgg a waxtaanee day mooy faam yoo xam ne fa bëri si ñun te balaag mel la balaag mel mi yenn yi mooy ñun nit wala ñu seqoog nit dara mbala ni kado suñ bokk wala suñ xarit ñu dal di koy defal ay teranga defal ko ay jamm wala jos lebal ko teranga dal dal di ni ka xam nga boko lebal teranga fa la wara fay teranga lool ku ne xam nako ñak ngor xaj baaxul nit ki bu la lebal teranga ko wara fay teranga waaye liñ war a xamit mooy nit ki boo ko booy def lu baax def ko rek te yàlla tax bu ko def ngir liñ lay fay ndax su boobaa loola am jënd ak am jënd ak jaay lay doon xam nga lu tax may mel ni kuy giix nii te lekkuma dara si xoor laa ne si suba lañ ne léegoo léeg loolu dañ leen di dalal su ngeen xiifee bay waaj a dee surtout suba teel gi nii xala ni kuy giix nii yow sante surtout booy wax nii xaw ma gaz bi ne ci ma biit bi la xaw lekkuma lekkuma lu am gaz de démb lu ma lekkoon ati sax mburu de laa lekkoon ak sup sup ba ma toggoon bërki démb noonu sup bi am ñebbe noonu ma def ko ci tikk tokk bi noonu moom laa rekk démb ak mburu waaye loolu léegoo lee fa may dal rek anyway loolu amul fayda sax taxawal ma dellu ci waxtaan wi lii du caaxaan de nit ku ne xam ne boo ko lebalee teraanga fa la war a fay waayit liñ war a xam mooy nit ki booy def tara nga koy def te yàlla tax boo ko defut ngeene di sonn loo dee boo ko xamee dina la dimbale man loolu xam naa ko nag de waaye xamuma ko enof waaye fi mu ne maa ngi koy gën a jàng di ko gën a nangu waaye it faam leen ne lu ci ne de nit ki bu fekkee boo ko lebalee tara nga koy def ngir yàlla it nit ki ci boppam waroo koo lebal teraanga mu dikk di la fay ñàkk ngor wala di la ñaawal wala di la bunduxataa wala di la indil fitna ku ne xam na ko waaye xam nga xàq fa xam xàq doomu adama yaay fa xam su boobaa seetaan ko rek waaye li tax ma gën a dikk ci vidéo bi la tey faham nit ñoo xam ne fañ lay lebal teraanga ba pare ñëw ëlbatiku for exemple di la fitna sëppal la nag fitna boo xane mbala ñu def la loo ne aka di la ko def rek continuer di la ko def ne doomu aadama njaay matu su la nit tooñee sax wala mu def la lu la wax de war ngeen ko mën a wax rek nga jéggalu borom bala borom jéggalu la bu dee mu la war a jéggalu ngeen continuer doomu adama njaay mbokk xarit jëkkër ak jabar sa liggéeykaay sax ngay jotee nit ña jubóog nit ñoo xam ne yow ngaa wax ne yow kenn du la def dara nit koo xam ne ngaa ne kenn du la def dara nit ku wax kuy def loolu ngay sonn ndax yow sa bopp ngay tooñ nit ñi boo ko yëgoo ngay tooñ sa bopp sax di aka tooñ nit ñi aka tooñ yàlla ne kenn matu man du may d'accord si yooyu de nit def la leen rek nga daw ba ko déedéet waaye nag nit ka fa la war a wax ne la baxal ma <coughs> faam soñ bi doon waaj a xam fan yële doo sumli la te vidéo bi duma ko edit nii laa koy posé fi mu ne nit ki su fekkee ne yow nga koo defal dara mu pare mu mu mu mu fayal la ñàkk ngor seetaan ko ba koo àddina waaye yow ci sa boppit su fekkee ngaa jël nit ki defal ko jàmm wala nga defal ko teraanga wala jos nga foog ne nit ki fa la war a defal waaye yow yaa ngi fitna Diko fitna rekne rek ne doba nit ka ne fim ne bala di la setan, bala nit ka ne la lii mënatuma koo dund ak yow nga dal ne nit ka fim ne fa ñak ngor teranga yi ma defal yeb hey ki ya ñak ngor ha lolu it len fa doy waram te bala ak melam ah bu ko tuddu ngeen wax ma ndax ñun suñ community fa bari yo xamne fa tudd kàddu googu tubaab yi tuddee balaat miir moom la tudd waaye ñun ñoo ko xamut ndax xaw ma xayam ñun fañ bëri ay balaat miir de balaat miir mooy comme ça ngay nax nit ki di di di ko gëmloo dara loo xam ne du ko waaw su boobaa ngay gëmloo nit ki ne ko nga may ñàkkee ngoon moo tax nga di ma def lii ak li ma defal fekk yow it gannaaw boo ko defalee loolu nga ko ne di fitnaa rek loolu duñ ko xalaatam nikki duurne boo ko defalee dara fi nanga koo war a sëppal ay ay ay ay safara mu di ci dox loolu it fa bëri ci ñun de ma bëggoon a indi waxtaan woo tuuti rek tey jéggal leen ma nag waaye xa nga man yenn may toog sama xel ma daj dara waaw dara lu mante la su dee lu ma dund laag su dee lu ma dund laag waaye gis naa koog damay ñëw di ko di ko séddoog ñun waaw yu ci bëri it ma koy séddoo fi ma ngi bugg a def video bo xane video ha fam jigen bu sacc gambe fam jigen ay ñaari jigen yu muru dem ci bitig ba di sacc sacc borom bitig ba pa mbuusa xali gu reuy go xane borom mu ne fokk na ne ay ñaar fukki junni ñaar téméri junni gambe war nañ caane wala ñetti téméri junni gambe ñene war na ci ga jigen ñako sacc nak man dana dik def ci video def ci topic ndax sàcc mile xam naa ci topic bu rëy bu ma war a géej naa cee def topic <clears throat> sàccantu ci ay bitig géej naa cee def topic yéen yi ma yàgg xam xam ngeen ne danaa ci def defoon naa ci ay topic xam naa ci expérience man danaa ci def topic bu yàgg fan yii incha allah su ma ko fàttee ngeen bindal ma commentaire ma ci vidéo bi ma fàttaliku ko lu xam solo ngi noonu waaye tey de lii rek laa leen bëggoon bëgguma waxtaan wi di gudd fi ne suma youtube channel bii bugguma di fi def waxtaani guddi xamaguma fu muy mujjee de waaye daal bugguma di def ay waxtaani benn waxtoog yooyu guddi guddi yooyu waaw maa bugg suma xalaatee dara loo xam ne dañuy jëriñ te duma ko mën a wax yëpp ci tiktok bi suma ciy def benn vidéo bu gàtt fële ma dikk def fii vidéo bu guddi bi yëpp waaw waaye danay doy e waar rek ndax ñeen ñi nga leen di defal teranga te di leen defal yu baax ñu ñaké la ngor jam faala faté yépp def la ennemi teg la naqar boo xamné ngay rëccu sax lo leen xamé won wala lo leen dimbali won lo di koy ñak ngor la tay xat ku ko def yalla dana la borom jaru nga diko def dara jaru mu di la naqari ba sa hadina tukki waye hit nikki boo ko defale teranga pare xalaat ne fim ne teranga bi ko defal fala ko wara fay walla parce que defal nga ko teranga bi yow fim ne yow yaa ko jënd sa jaam la nga ko wara ni di fitnal 24 hours ta mum fa wara noppi ha ah, loolu duy jaaru de loolu fay xawa sante njaay de te borom bu waxee nga ne fama jàmbu su la baxee nga ne fama jàmbu fañ war a jàng rek lu ñuy mën a xamee communication mën a wax ak nit surtout bu dee ni ka fa ñu tooñ mbala ñu tooñ ko mbala ñu xam misunderstanding ñu jàng nu ñuy dalee génnee mer ma tegee ko boor kii déglu kële kii déglu kële ki nga xam ne moo war a balu xàq moo tooñ mu wax dëgg boppam balu xàq moroom ka ñu continuer am jàmm foogoo loolu fañ ko war a jàng war naa cee def vidéo bu ngeen buggee ma def ci vidéo waxal leen ma njëriñ li ne ci loolu waaye tey njëriñ li na ci ñàkkam ñàkka xaj ñàkka ñàkka ñàkka nit ku ñàkk ngor njëriñ li ci ne lay wax ak njëriñ li na ci nit boo ko defalee teraanga bu ko topp di ko loolu laay tëjee wax ji ki boo ko defalee teraanga boo ko toppee di ko fitnaa fay xaddi bala that's the reality soo boo nga jut ko sax soo ko toppee di ko fitnaal di ko teg yenn fitna yi loo xam ne wóor naa ne jaaduwut seet ko ci yow bu doon yow la doo ko mën a dund jos nga ne nga koy teg kii ndi yaa ko defal teraanga yaa ko lebal teraanga kooka duur sa jaam fa xam xaduna boppam war a dund fa des ci fitna yi nga koy teg laal la lay kay seet waxuma koo xam ne nga ko defal teraanga pare mu di la ñàkkee ngor déedéet waaye koo xam ne yow nga ko defal teraanga pare nag teraanga bi fi ne borom war koo fay ba xëy dee nga ko fitnaa di ko bund xataal du xamati àdduna soo koy def koo defal teraanga danga yàqoo moom waaw yow it doo xam jàmm ndig naqat bi ngay xamee ne mukk na la nit ñi fay teraanga gi ngi leen defal naqat mooy soppali naqat woo xam ne foo tollu ngay jëf-jëfi ba doo xamati jàmm looloo war a tax nga ko yow mi nga xam ne nit ñi fañ lay defal teraanga nga di leen jàmm hey àddina bàjjo bi àddina bàjjo bee defanteeg yow xaqi nit koo ko dana la dal digg bëccëgi ndara kàmm booleet bu yàggee doo xamati ku la defal teraanga ndax kooka mën na koo wax ba nit ñi dégg ko xam ni nga mel walla xaqam dal la rek ba nit ñi duñ la xóolooti nit ñi ñëpp bedd la duñ la defal teraanga yalla sax di lol dool defalati teraanga ndax yàlla yëg na ko li la ki defal ak liñ ko fayé tam mu deful la dara mu ngi dekk nit ku bax ci yow nga fayé ko li bolé yow ngay girti bo tuddé guddi do mëna nelaw bo xamé ngor ndax ngay girti di xalaat ki teranga yum la defal nga fayé ko li gi dana la dal ak gatché gi fay tax do tuddé guddi do mëna eh, nelaw guilty nag ku xam ku xam fitna ak price yi ne ci guilty yépp ku bëgguma def vidéo spécial vidéo based on guilt nang ma ko wax ndax guilt mën naa see wax fukki at du jeex guilt nag moo mën a yàqal doomu aadama njaay xadunaam te doo ko yëg yow mi guilty laa fa lay yàqal sa xaddina te doo ko yëg soo baxut guilt ma te guilt fa xam ban façon yi guilt ngay guilt fa xuute fa xuute ay façon xam na yenn guilt yoo xam ne neexut a ba de neexut a kon nag nañ leen moytu buñ créer guilt guilt boo xam ne fa ñu dal yàllaa ko def nañ jàpp si yàlla te ba ko mu dem waaye guilt boo xam ne ñoo ko créer suñ bopp nañ ko moytu waaw xam na yenn guilt yi nag fu mu jaar rek nga def ko te bañ fiir guilt duhut guilt sax de yooyu noonu waaye su ngeen buggee rek lay kay seet ma def ci vidéo ngeen waxal ma ndax yooyu guilt la waaye fa wutee guilt ba tey du guilt bi may wax ba tey ne moom nga créé sa bopp guilt bi ñàkk ngor xaj bi fa wuute ba tey jërë ngeen jëf ci vidéo yi ngeen di seetaan bu leen fàtte di like vidéo yi di ko séddoo ci koo xam ne mën naa dégg wax ji mu jëriñ ko wala jot déglu ko rek pour waxtaan jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah xendu leen jàmm jërë ngeen jëf bye <laughs>